والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه ذوي الرضوان والتمكين قال الله تعالى في كتابه العزيز ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله وقال تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة وقال تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة wa innahu fi l-aaxirati la min as bokk yi fi teew kamay jaarale wax ji ci ki nga xam ne mooy ministre bi boroom réew mi yabal mu teewal ko ci mbir mi li sëriñ bi waxoon rek moom lay leeralaat fii bala maa àgg ci leeral loolu damay wax tuuti ci mbirum Serigne Touba sëriñ Touba boroomu may la boroom sañ-sañ la du ko ñuy xalaat ci xel du ko ñuy natti ci yi ngay gis walla ya nga xamoon wala ya nga déggoon ndax kon doo ko gis dafa wax ni wa ansiyun siini bi yow mii wa bi xad damay dox man taxawuma damay dox taxawuma lu taxaw ci sama kanam danaa ki jaar jàll lu ma téye ne doo demit danaa ko fil jàll ku dugg nag ma yóbbaale la mu ne sama tey june jay gën sama démb kon li ñuy wax taux de croissance ci murit moo gën a gaaw ci croissance yi ñu am xam yépp doxinu Touba da koy firndeel ndax douze pour cent lay màggee nu Touba toll ren fukk dolli fukk ak ñaar ca limba bu déwénee moom lay doon million nga dolli ci douze pour cent ci million day bari bu déwénee nga lam doon nga dajale ko dolli ci tollu ma toll loolu mooy doxinu Sëñ Touba da koy misaal dafa am yett yoo xam ne ñu ko yàlla muy bëriwut te may na ko sëñ Tuubaa sancu dëkk mu màgg ba rëy sanc dëkk laa wax mu màgg ba toll ni Tuubaa toll kenn mësu koo def ci àddina laa wax ci àddina mësta diir bi mu ko sancee léegi ak fi Tuubaa toll benn dëkk bu gaawee noonu màgg amul doom jox la sëñ Tuubaa ko moom ku jur da ngay jàng la wala nga denc wala yar waaye jur doom deret joxe sëñ Tuubaa ci mayam bokk lu waaye da ngay denc waaye ñàkk joxe sëñ Tuubaa ko moom moom lañ koy defal moo tax Tuubaa liggéey bi di gaaw joxe bi di gaaw te li ñuy joxe ñu koy joxe duñ yëg ne ñu ngi koy joxe ki ñu koy jox rek moo xam ne mi ngi fi waaye luñ joxe fàtte nañ ko looloo gën a jafe doon loo xam ne yëgoon ne doon nga ko ne boo ko doonee da boo ko yëgee da ngay yëg sa bopp boo ko xam ne waaye boo yëgut ne yaa ngi dem foo toll yaa ngi dem moo tax kon liggéey bii nga xam ne ay liggéey da koo jëkkoon ya ko jëkkoon am yu ko jëkk ya ko jëkkoon am yu ko jëkk ñuy toftalonte di toftalonte te bu ñëw gën moroom ma bu ñëw gën a rëy moroom ma tey jii lenn la ci lu sosuwaat loo xam ne màggaa yi liggéey yi nga xam ne dañuy am moom la te bu àggee lu ko gën a rëy amati sëñ Tuubaa mel kon sëriñ bi nee na li ngeen dajale woon ba mu naroon koo liggéeyee moom mi boroom réew mi mu wax yéenéem dugg ci biir liggéey bi kon boroom réew diisu bokk moom ndab nañ ko ba mu dem moom nag li taalibe yi dajale ak ni ko taalibe yi yaakaare dugg na ci biir loolee li ma waxoon sànq sëñ Tuuba saxaar la buy dem ku taxaw nag dugg dalay yóbbaale kon yàlla na yóbbu ñun ñëpp jëf jii ngeen fi yéene yow ministère bi ak ki la yabal jëf jooju yàlla na dugg ci saxaaru sëñ Tuuba ndax kon day àgg yéen taalibe yi nga xam ne it yéen am seenu sëriñ mu jaral leen lu ne te sëñ Saaliwu damaa wax ci bi may ñaan fee wax sëñ Tuba ci wala xadd karram na dafa jëkk wax sax ni sama mbir dafa mel ne soro soro rabal wu ma ràbb li des ci àddina sama mbir dama ko ràbb taxañ ko bis bu ñëw ma tàllal fekk ràbboon naa wax la cay xew ak na muy mel boo ree ñuul soro bi day ñuul boo ree weex day weex moo tax tey jii ma andi ñaari bayit yoo xam ne teye ko taxoon a jóg sëñ Tuba dafa wax ci wala xadd karram naa ne maa ngi lay ñaan li ma bëgg tuubaa nga mottalil ma ko mu waxati ci nooru daare ni ne maa ngi lay ñaan nga ñaanal Saalixu mi nga xam ne mooy mottali li ma bëgg Touba kon loolu sor yi mi ngi soog a tekki ko tey tey la ko tàllal la muy tàllal bu subaa nu bokk ko gisati wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mu defe waat ko nii loolu mooy li solo sama borom defal. yal na nu sama borom defal. ci darajaay sëñ Fallu mi nga xam ne. yoon wi yoon wi. lu ne def na ko ci. lu ne def na ko ci. te ku ne xam na loolu yi. te ku ne xam na loolu yi. yéeneen ci boppam. yéeneen ci boppam. di sëñ Tuba amoon. di sëñ Tuba amoon. àgg nañ ci lu bari. àgg nañ ci lu bari. yéen a ba fi. yéen a ba fi. kenn ku fi ne it. kenn ku fi ne it. jaxasoo nga ak moom. jaxasoo nga ak moom. ci war a ànd ak moom. ci war a ànd ak moom. ànd ak moom. ànd ak moom.